lan moo andi turu Ndeye Ndiaye Tyson Tyson bi fu mu jógee tur boobu. waaw Tyson bi fu mu jógee mooy xam nga gone Pikine rek euh, ku nekk xam nga ni ñu waa Pikine euh, nekk nañ ñoo xam ni dañu bëgg làmb comme man surtout man euh, Ndeye Ndiaye Tyson lu ko waral maak Tyson mbër ñoo bokkoon koñ. mais comme boobu ñu ngi mu ngi dem si mbappat yi ñuy ànd ak ñoom ku mel ni Tyson ay ñoom Ndiaga Diop Baboy et cetera yëpp ñoom Dongolo ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjana firdawsi ah. ay ñoom Yves Niang ñëpp dañ daan ànd di dem si ay mbapat mais comme Tyson da daan bëree di si mbappat yi di daan ni moom su mut ndaw lu tudd ndax mu ndaw lañ ko xamee mu ni moom su su suñ ko jàppalee ba mu nekk mbët mu day tudde boppam Tyson léegi nag euh, comme man dama xawoon a nekk xale bu bëri affaire su ma dikkee ci suñu grand yi toog ma leen di nettali mbapat ba démb lii lañ fa jëlee mu ndaw moo daan kii moo daan kële nee na bu ñu ko jàppalee yéen ñëpp soo ko jàppalee day tudde boppam Tyson xam nga nit ñi ma sonal leen ci nag fu ma toog rek bu ma gënaa yónnee yu attaaya su ma dikkee wax ci affaire boobu ba finalement suñ ma séenee may ñëw rek ñu naan sa Ndeye Ndiaye nangoomu loolu moo moo indi Ndeye Ndiaye temps yooyu nga nekk xale nekk jigéen euh, doon dugg ci biir mbër yi noo ko daan dundee loolu ak sa entourage sa papa sa yaay. waaw mais mosuma ko yëg xam nga xale moom su dee yow boo xëy boo xëyee suba ndax ñun dañ daan jóg 5 heures du matin. ndax jamono jooju euh, fi ñu dëkk ginnaaw raay am robine soo yeewoo fajar da ngay dem profitoo dem jéggi raay nga root soo dikkee bale seen kër raxas ay ndab fóot ànd ak sa yaay dem jaay ji xam nga bu 11 jotee ñu jox la ndugg mi nga ñëw togg añ ak sa liggéey yëpp da nga koy def su ngoon bu weekend jotee nag mbappat yi nekk ci koñ yi mais loolu rek ngay am pour pour pour pour euh, bégal sa xol waaw dañuy xam ne xale bi bu dee mu ngi nekk si li mu war a nekk lépp euh, li muy bëgg si xolam tuuti dañ ko koy bàyyeel ndax euh, loolu loolu la bëgg daal waaw comme musuma am problème benn euh, lu ma war a def te defuma ko xam naa looloo taxoon rek ñu bàyyi ma te loolu lañ bëgg daal. lan mooy sa relation ak Tyson lan moo nekkoon sa relation ak moom. waaw waaw ñoo bokkoon benn koñ en même temps maay nit bi nga xam ne moom maa ko njëkk a yëkkal fan yëkkatil fans club ndax xam nga ñun waa Pikine ku nekk si li muy def rek. ku nekk da ko ciy jàppale pour affaire bi jëm ca kanam ma nekkoon nit bi nga xam ne nag maa ko njëkk a yëkkati fans club euh, ñu continuer nekk ci liggéey bi ñu ciy def lépp lu ñu war rek pour mu dem ci kanam ba finalement ñu dem ba euh, Sénégal yëpp am fa ay fans club euh, mu nekkoon liggéey bu rafet waaw bu daan bëre ñu wàcc ay kaamil ànd ak fans club yëpp hmm, dem def ay ñaan togg ay añ defarlu ay tiset def lépp daal pour bëggale ko waa Pikine yëpp et puis moom it mu def liggéey bu rafet Pikine yëpp di si kontaan. Euh, tey jii doomu pikin yu bëri weddi ko euh, yow est-ce que ba tey yéen a ngi am euh, relation boobu est-ce que ba tey. ah mais doomu Pikine yi weddi wuñu ko de xam nga Pikine nag lu ñu weddi seen bopp ndax ñoo bokk deret bi xëy na dafa bëreetul rek. mais Pikine moom weddi wuñu ko ndax Pikine ñoom ñëpp dañoo bëggante. combat yi mujj yi ni ngeen ko daan taxawoo ba njëkk ba dañ gis ne dafa wàññeeku lu bëri. waa mais xam nga loolu moom mënu si wax lu sori ndax man depuis si làmb Mor Fadam euh, ak euh, Mor Fadam ak euh, Tyson bi ñu defee woon Gambie man boobu laa arrêté sama activité làmb si affaire fans club et puis xam nga man nit bu am ambition laa et puis du ma jàpp si dara rek continuer instant boobu dama xalaat ni man war naa créer leneen waaw mais pas nekkati di topp di def ay détails ndax àdduna bi yàggul et amoon naa gis-gis boo xam ni war naa am fu ma teg sama tànk si combat boobu laa arrêté woon affaire fans club bi woo ñëpp ni leen arrêté naa damay defi ci leneen waaw moo tax euh, après si laa créé Ndeye Ndiaye Tyson production commencé di tëgg sama ay mbapat waaw comme yooyu moom dootoo ko mën a booleeti dara moo tax da ngay absenté mais tout le temps ñu ngi supporté Pikine waaw. d'accord euh, nga créer sa structure Ndeye Ndiaye Tyson production euh, milieu promoteur dañ daan gis ay góor kese kese kese yow nga ñëw am fit ne da ngay créer structure de production nan la demee. waaw mooy li ma la wax rek xam nga bi may créer euh, Ndeye Ndiaye Tyson production dafa fekkoon mu nekk période boo xam ni làmb bëggoon nañ ko lool et puis mu duñu doon jaral. ñuy jóg bu àjjuma jotee wala samedi di wëri fu mbappat am dañ ko daan wëri su ñu jógee wër a wër wër ba sonn yenn saay eh, da ngay dégg tëgg dañ eh, rappelé wu ndongoloo ndeysaan yal na ko yàlla xare àjjana dañ daan dégg tëgg rek ñun ni mbappat am na ñun ak ñoom eh, gaa gars yëpp ñu jóg dañuy dem wër a wër a ba sonn da ngay dégg tëgg bi rek mais doo xam fu mu nekk su ko defee finalement ñibbi ma ne mais ñun li ñuy dox di wër tëgg mais pourquoi pas ñu duñu tëgg suñu mbappatu bopp di toog si suñu commune kan moo ko fi tëgg man leen man ñu ne ma yow da ngaa mën a man ne boo leen ma jàppalee ma tëgg ñu ne ma nu lay jàppalee ma ne leen sécurité rek mais man mën naa créer moom ba defar affaire ndax yàgg naa ci organisation ñu ne ma préparé ma daal di commencé jàpp benn date ni leen damay def benn ba pat après gars yëpp ñëw vraiment nit ñi tamit baax euh, commencé publicité bi jàll ku mel ni ñoom sama màngaan euh, boobu ñoo nekk euh, RTS ñoom ñëpp ñu ñëw def promotion bi jigéen buy tëgg mbapat affaire yu demee noonu waa CNG ñëpp affaire bi yëm leen daal xam nga après ma gëm ni euh, ñaari loxo mooy takk euh, sër mooy takk tubéy affaire bi gëm-gëm la rek liggéey la rek après ma dóor ko mu nekk mbappat yoo xam ni non doo comprendre fees neex ba ci final bi ñu ko mujj def entre mille francs lañ ko defoon mu fees ba affaire bi dépassé ñu après ma def ko ay yoon yoon yoon affaire bi jàll ma ne mais pourquoi pas du ma dem stade

te ku bëgg a tedd il faut nga sonn euh, après day oyof si yow soo ko jëlul yenu ko rek affaire bi dafay yomb mais am na ay coona coona kese la ndax xam nga jigéen bu góor góorloo ba am ñaar dërëmam dugal ko si dara bu sañoon xaalis bi dafay génn mais balaa moo génn di nga daj loo xam ni euh, dafay metti ndax di nga xool mbër yi ngay taxawal soo fa jegee di nga dem wëri ji ay sponsor di nga def démarche bu nekk mais sant yàlla rek dangay xam ne ci àdduna nga nekk dara yomb mu mel ni tam euh, liggéey boobu ak yëngu yëngu boobu nga yëngu woon moo la yéex tax a yéex am borom kër danga nga am boroom kër su ma jur non pourtant non non non pourtant c'est-à-dire lu <laughs> loolu xam nga euh, borom kër moom yàlla moo koy joxe waaw borom kër yàlla moo koy joxe nga boo nekkee jigéen bu waaw daf ciy nag moom doy na waar lool daf ciy mais euh, après da ngay gëm ni rek yàlla xam nga àdduna li neex lépp àndul waaw il faut ñu xam ne li neex lépp ànd yàlla du may lépp doomu aadama li mu bëgg dalay may lii rek xañ la lii waaw te loo gis rek nit boo gis rek mission ngay dox ci kaw suuf euh, doo mën a am li nga bëgg lépp waaw moo tax dañ koy jàppe noonu rek xëy na yàlla daf ñu wàcce réew ñu war a liggéey xay na leneen tamit bu waree ñëw dañu jàpp ne àpp bi jot na rek mu ñëw mais en tout cas doy na waar daal mais dañu jàpp rek mbir yàlla la waaw mais yaakaaruma nag góor yi dinañ war a xaw c'est-à-dire góor ñi dañ may ragal mënu ma comprendre lan motax tax góor ñi di ma ragal kan? hmm. ah gaynde nga et tout ça dañuy gis nga yëngu di jigen bu mën góor wa am amna na yu yoo amuñu fit non non xam nga xam nga affaire bi du affaire fit affaire gëm-gëm la affaire jom ndax xam nga jigen mom su dee yow do xex do xuloo yaa ngi sant yalla baax et puis ci kàttanu yalla momi man lepp mu ngi lay dimbali ba nga xamni euh yaa ngi respecté sa diine et puis yaa ngi moytu lepp lo man Euh, xëy na duñ la gis si yeneen yi yu bëri yoo xam ni ku la fu fekk danaan acam kon euh, góor warula mën a ragal ndax nit moom su amee diine am lislaam gëm boppam fonk ay waajuram nangoo liggéey mais loolu lañuy xool si jigéen ju baax mais nag euh, yàlla nag moom ma joxe borom kër et puis amul problème daal dañ koy dañuy gëm ne rek loolu moo war a am rek waaw. est-ce que mën nañ xaar Ndeye Ndiaye Tyson am beneen boroom kër. ah mais jigéen laa di ah mais bien sûr bëgg naa ko lool mais jigéen jigéen taaram mooy sëy et euh, dañuy dañuy mottali suñu jaamu yàlla ndax euh, nit ñu am diine lañ dañuy ñaan yàlla jàppale ñu ba ñu amaat euh, koo xam ne dafay gën si ñun waaw loolu la ñuy ñaan yàlla. ban ban genre jëkkër. baax ku baax. ku am góor gu baax moom mooy gu am diine ku nangoo liggéey am yërmande. Mhm. dafay am xaalis tam. noo xam nga xaalis moom yàlla moo koy joxe. mais sutura moo ëpp alal gis nga nit ki su gëmee yàlla nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey am yërmande lu mu amul dafa gën ci moom loolu rek mu am solo soo naanee sa soom bi tamit te sant yàlla xam ne lii la yàlla cëral alhamdulilah mais na nga gëm yàlla am diine am yërmande te nangoo liggéey nag waaw am am moom yàlla moo koy joxe. Euh, gisoon nañ la tamit nga yëngu ci politique bi bu baax bu ma juumul waa liste nga woon. Euh, élection yi est-ce que tamit euh, viré woo transhumé woo affaire yi méttiwul rek nga dem. do <laughs> do non xam nga man Abdoulaye Wade moma yar wa man Abdoulaye Wade moma yar euh mu nek suñu papa jo xamni suñu maam dañ koy ñaanal bu baax a baax euh, dañ koy ñaanal yalla guddal fanam bu baax a baax ndax mu nek na nit kay ndax politique bu ñuy jàngal mooy gëm sa bop ndax Ndeye Ndiaye boo ko gisee sax da nga naan ci développement la gëna a ci politique té pourtant politique bokku na ci li ma njëkk def. avant may def eh, ay lamb ak ay yëngu ci développement té lolu wad mo ñu ko jangal nit bu nekk da nga wara a lan nga défar sa réew et puis nit bu nekk war nga nekk nitu social nit bu nekk war nga gëm sa bop ndax nit bu nekk da ngay xaaju ndax daf ma ko daan tagge di wax naan suñu amone fukki jigéen ñu melni ni Ndeye Sénégal avancé na nit bu commencé sans dara mais ku ko jappalé mu dem ci lolu lañ gënon di jege président euh ba xeyna yeneen ñu def yépp ci idée yoy lañ ko amé ba di def mais transhumé wu ma nag. kon mën nañ ne euh, transhumé transhumé nga parce que bàyyi nga Wade dem feneen. waaw waaw xam nga bi euh, président Wade euh, quitté ci réew mi nekkaat nañ fa ay ñetti at ñu amoon suñu benn frère nag boo xam ni ñu koy wax El Hadj Malick <coughs> mu suñu bokk parti mais ñoo bokk dëkk Pikine pardon ñu toogoon waxtaan nag am xalaat idée ñu dañuy créer benn parti mu nekk grand parti ñun ñëpp nag ñu gëm suñu bopp ni ñun réew mi moo ñu ñor. ku ñu gis nga xam ne da ngay jóg pour réew mi rawatina nag doomu Pikine euh, dañuy jóg ànd ak yow ñun ñoo créé grand parti